Euh, dalen ak jàmm nuy nañ len ziar nañ len yéen ñi nga xamne suivre Dakar Actu rawatina yéen ñuy suivre sen émission euh, sunu kan bi xam ngeen ne dañoo fas yéene ànd ak yéen euh, fii ba li nga xam moy Coupe d'Afrique bi di tambali lepp lu ci am rek ñu ci tay nak ci sommaire bi dañuy principalement la liste de joueurs bi nga sunu coach national bi Aliou Cissé El Tactico publié na ko ce vendredi liste bi nak bëri peut-être lo xam ñu ko ci doon sentu

participation équipe nationale ca kan ba kan euh, boobu nag bëri woon la ci xew euh, fiasco bu doy war bo euh, malheureusement lion yi dundon nañ ko fa lolou yëpp ñu nar ko waxtani ci sunu kan bi. chaque jour qu'on dort qu'on se réveille y a de nouveaux dossiers. Nak ñu ngi ci jour J moins 15 tey euh, Aliou Cissé jàkkaarloo nak presse sénégalaise presse internationale bi daal di la liste de 27 joueurs manam ñaar fukk ak gaïne ñaari gaynde yi nga xamné tan nañ len ñu wara dem ci Côte d'Ivoire ci Yamoussoukro daal di def opération reconquête du titre liste bi wul surprise parce que boy xol ña demoon ci Coupe d'Afrique 2022 ci Cameroun ñu ci bëri ñu ngi ci bi liste bi waye itam ñi nga xamné ño éliminatoires yi nga xamne mom lañu la ñu weesu daanaka ñoom la Aliou Cissé wowat les cadres de la tanière sont présents amna nak ay surprise yu ndaw ndaw suñu gaay yi laaj nañ len nan lañu gissé liste Aliou Cissé bi. aw ci ben surprise ku xam Aliou Cissé depuis bu mu toogee ci bop équipe nationale Sénégal depuis mars 2015 dafa am ben logique bu muy dawal donc. Euh... Euh, ci logique bobu la nek logique de continuité de tubaab di logique de continuité ci loolu la nek mais bon so xolé peut-être secteur bi nek John Lopi n'est pas très favorisé par la concurrence. man personnellement la don xar euh, peut-être ben wala ñaari joueur mais inquiétude bi c'était plus ci ci joueurs yi blessé man fofu la don xalat ni peut-être euh, mën naa mu am kenn wala ñaar ñoo xamante ne euh, seen état parce que blessure dafa xaw sensible li lay wax tey ak li lay wax suba am changement. waaw Fadiga fu mu dañ ko wara ñaanal parce qu'il est encore relativement jeune mais xolé bo xolé concurrence bi taxaw ci kanamam ah, tay ji le titulaire indiscutable à moins que mu blessé c'est Sabali. Noah je pense que c'est un cas bu xaw sensible touti euh jouer gul match en Afrique. Euh, pour ñoo rek lancer ko nii ci bain bi ci biir camp Coupe d'Afrique beneen beneen beneen beneen beneen level la. xam lu ñu intéressé nañu gagné rek ñun supporter loolu rek mooy suñu rôle. duñu critiquer entraîneur duñu critiquer joueur. Bah, comme niñ ñu leen ko waxé ku tànn rek faw rek nga def ay élimination malheureusement nak ki nga xamné moy Noah Fadiga latéral droit bi doomu Khalilou Fadiga lu gauche magique Aliou Cissé da koy euh, bay fi nga xamné euh, moy euh, Sénégal du dem fofé ci Côte d'Ivoire ki nga xamné également tay boole ñu ko ci liste bi muy John Lopi, milieu terrain bi malheureusement également il paye le retour de Pape Alassane Gueye ndaxte nak Aliou Cissé yag na ko wax cadre yi nga xamné ne nañ ñëw ci tanière bi am nañ expérience nañ ñu jot am vécu li nga xam moy Coupe d'Afrique ñom lay gëna a privilégié mais loolu itam ba légui gaay yi li lañ ci xalaat. Euh, ñu te xamnañ ni ne Cissé dafa yàgg a ci joueurs yu cadre yo xam ku melni Pape Gueye te yàggoon na wax ne ak euh, Pape Gueye bis bu revenir ci blessure am donc day day ñëwaat équipe nationale. euh te so xolé entre-jeu bi ñafa fa nekk euh, Pape Matar Sarr la Lamine Camara Pathé Ciss Gana Cheikh Kouyaté. Euh, day a donc moom peut-être concurrence moom moo ko et jeune là il n'est pas encore tard dese comme marge de progression. Euh, mu ngi noonu kon nag ñoom euh, Bamba Dieng ñoom Famara ak ñi nga xam euh, El Tactico de l'en fàtte ci liste bi ba si Moustapha Nam borom larme yi dañ leen di ñaanal rek xolu ñu supporter équipe bi la petite surprise mun nañ ko waxee noonu ki nga xam ne tey moom moo ñenn ñi Abdallah Simon attaquant wu Glasgow Rangers yi fait ci première division bu Écosse moom nag Aliou certainement gis na performance yi nga xam def nako récemment motax ñu woko ndax ndaxte ñu ngi euh, toute compétition confondue euh, dugal na lu mu gatt 14 euh, buts mom Abdallah Sima nga xam mu ngi ci 22 ans encore un jeune attaquant très prometteur fim mu nak beaucoup, nag mu a ci ñi nga également dañuy dem ci Coupe d'Afrique bi may rappeler rek première sélection mu ko amone en mars 2021 suñu digënté ak Congo la Euh, tanière bi nak xam ngeen ne ni mu amé ay vétéran ñom gan Gueye ñom kuyaté euh, Sadio Mané dama ko ci bolé walé amna ay bleu yo xamné nak dañuy football pour la première fois une coupe d'Afrique des nations effectivement amna au minimum neuf joueurs yo xamné dañuy jouer pour la première fois une coupe d'Afrique des nations donc ay bleu lañu yu na découvrir euh, Afrique kan bi ak lepp li nga xam mo ci nara laxasu bokku na ci joueur yoyu euh, ki nga xam euh, moy euh, Iliman Ndiaye day football Coupe d'Afrique bu ñëk bi Nicolas Jackson donté mu ngi won ci équipe bi bokkoon ci Coupe du Monde Qatar 2022 ba légui Abdoulaye Niakhaté Ndiaye bu Ligue 2 française également le jeune défenseur mom tam très prometteur dina découvrir au moins lan moy ambiance CAN ba légui ci bleu yi découvrir Coupe d'Afrique bi Formose Mendy ci lay bokku gardien de but bi Mory Diaw Ismaël Jacobs dina si beaucoup niki nonou Lamine Camara également bi mo sa toute première euh, Coupe d'Afrique benen ponk bu am solo bo xam tay euh, Aliou Cissé ñëwaat na ci bu baax moy état de santé joueur yi nga xam dañoo blessé woon té ñu convoqué leen mun naa ne euh, Seny Dieng la bokk Youssouf Sabaly Idrissa Gana ba si ki nga moy suñu attaquant bi di Boulaye Dia Aliou Cissé nak laaj nañ ko lan mota nga convoqué yenn joueurs yi nga xam ne dañoo blessé donte sax ñenn ñi reprendre nañ entraînement bi El Tactico nag lim ci tontu leer na nee na balaa mu leen di convoqué ku ne si ñoom woo na la téléphone.

Cissé nee ak Youssouf Sabali mu coach bul am dara Coupe d'Afrique bi di à 100 je suis prêt loolu la Youssouf Sabali wax coach Aliou ñeneen ñi nag ñoom ak ñi cas de blessure Aliou Cissé nee na ñoom ñëpp Sénégal normalement war nañu retrouver ses capacités. xam euh, depuis daanaka ñaari fan euh, sélection yi ñu ngi daal di euh, fësal liste de joueurs yi nga xam ne ñoom la défendre seen couleur ci Coupe d'Afrique bi ñu bokk nag ci groupe bi nga Cameroun mu ngi fa waaye itam Guinée mu ngi fa ak Cameroun nag seen liste bi liste Rigobert bi ba mu génnee na ay joueurs yoo xam ne la Eric Maxime Choupo-Moting euh, bok nak ci vraiment staru équipe Cameroun bi euh, mais Rigobert Song mom japp na ne euh, fi toll ni schéma yi togg lim soxla ci équipe bi ak li nga xam ne la nek di liggéey ak Choupo-Moting kon nak Rigobert Song borom théorie du danger mu ngi préparé match bu doy contre Sénégal. justement en parlant de ce match euh, Sénégal Cameroun ci chiffre yi nga xam ne waa CAF euh, joxe nañ ko ñu ngi ñuy match boobu war a dox diggante euh, Sénégal ak Cameroun fi mu toll nii supporters yëpp a ko bëgg seetaani moo tax bokk na ci match yi nga xam ne lu bëree bëri bëri ci ay billets jënd nañ ko si loolu nag di ay information yoo xam ne CAF ñoo ko ci seen plateforme ba léegi ci Côte d'Ivoire nga xam ne pays organisateur bi borom. Aquaba madame Dalen Adjam, bienvenue Nous sommes ci les CAN de l'hospitalité Nous avons fàtte benn Nous boo Nous la Wilfried Zaha Momza, malheureusement ba ci li nga info Diop a euh, instant. Euh, Aliou Cissé bëggoon na ko woo ngir mu ñëw football Sénégal moom nga xam ne dafa am nationalité marocaine ak sénégalaise malheureusement Maroc la mujjoon tànn mais nag xam ngeen ne dafa blessé ba tax na bokkul ci li nga xam ne mooy liste joueur yooyu Walid Regragui choisir pour ñu dem ca ba euh, ba léegi ci li nga xamné moy info yu croustillante yi nga xamné euh, mën nañ leen ko wax euh, ci Coupe d'Afrique bi Guinée nak coow lu reuy reuy rëy a fa am lenn moko indi Morlaye sila mën naa ne mooy meilleur joueur Guinée actuellement wala bokk bokk na ci joueur Guinée yi ñu gën a ràññee moom tamit Kaba Diawara di entraîneur Guinée bi da ko zappé coow li nag lu ko indi du dara lu dul match amical bu doxoon diggante euh, Guinée ak Brésil te Brésil gagné woon leen 4 buts à 1 ba match bi jeexee nag Vinicius Junior l'attaquant du Real Madrid brésilien bi dafa weccoog mayoog Morlaay Sila mayo boobu nag ba Morlaay duggee ci bis bi rawatina ci vestiaire yi la mayo bi ne selaw mu mer ne nag mayo bi foo mu génn daal di joxoñ baaraamu tuuma ay coéquipier am ba si sax coach bii di Kaba Diawara dinañu fuyee saak yépp mayo bi bu génnul du am jàmm. mbokk yi yegg si nañ nag ci partie bi ma gën a neex ci émission sunu kan bi mooy rubrique fàtte liku wax naa leen ko sànq dañuy dellu ba ci kan Caire 1986 xam naa ne ñu bëree bëri bëri ci ñuy seetaan juddoo ñu woon wala fàtte nañ ko suñu papa yi daal ñoo ciy gën a gën a gën a am ay souvenirs moo tax tey fàttaliku bi dañuy dellu 1986 jamono jooju le Sénégal toogoon 18 ans yoo xam ne bokkuñu ci li nga xam ne mooy Coupe d'Afrique 18 ans d'absence mu yàggoon Sénégalais yi namoon li nga xam ne mooy participation Sénégal ci Coupe d'Afrique boobu jamono xam ngeen ne. cách national la ñu organisé woon maanaam ñi am ñaar dërëm ñi am juróomi dërëm ñi am seen ñeenti dërëm ñëpp ket ko collecté ko def ko ci li nga xam ne mooy caisse fédération bi ngir gunge lion yi ndaxte woon nañ leen gis génération boobu nga xam ne ñu bëri jàpp nañ ne c'était une génération doore malheureusement nag kan boobu nañ fa demee ak nañ fa ñibbisee fiasco total la parce que ca jamono yooyu may fàttali ñaari groupe moo doon am ci coupe d'Afrique yi li nga xam ne mooy groupe A A bi ak li nga xam ne muy groupe B bi ah, ci boobu jamono nag euh, Sénégal nekkoon ci groupe A bi euh, bokkoon seeg équipe Égypte bu mag ba woon ñu organiser woon Coupe d'Afrique bi euh, Sénégal également bokkoon ci groupe boobu ak Côte d'Ivoire suñu diggante Côte d'Ivoire nag yàgg na waaye itam ñu bokkoon ceeg Mozambique selon expert yu bëri nag équipe boobu nga xam ne moo demoon Caire 86 ay ndaanaan rek rek rek rek ñoo fa nekkoon ñu bëri sax jàpp ni c'était la meilleure équipe bu Sénégal Sénégal Moussa am ah, parce que nak euh, ci lim ñi nga xamné fa na ci Boy Bandi mo capitaine b également mën nañ ci lim ay tour ñu euh, actuel président bu Jaraaf mu ngi génération 86 bobu ba légui ci ñi nga xamné mën nañ ci lim moy euh, Pape Fall ak Racine Kane wayé suñu père Roger Mendy l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football mu ngi won ci équipe 86 bobu <laughs> Boubacar Sar, lokot également mu ngi woon ci équipe bobu Joseph Koto ñu Mamadou Taw une génération dorée wax naa ko nak 18 ans yi Sénégal togon na ci Coupe d'Afrique premier match bi nekkoon match bu Ré, Sénégal Égypte mu match d'ouverture bi contre le pays organisateur euh, ki nga xamné nak mo moo le but de la victoire mo nekkoon un certain Tierno Yum. Sénégal gagne Égypte un but à zéro mu nekkoon ndam lu yaatoo yaatu lu kenn fogul won euh, ñaarelu match bi euh, Sénégal daal di tase équipe bobu di Mozambique gagné ko ñaari bal ci dara ñi nga xamné nak ño ñoo pour le Sénégal don doon Pape Fall ak l'excellent Jules François Bocandé Yal na c'est ci kon nak ñaari match ñaari victoire Sénégal du survolé CAN 86 bobu match rek nga Côte d'Ivoire la match nul sax buñ normalement qualifié ci li demi-finale malheureusement nak Côte d'Ivoire a di Sénégal 1 but à 0. alors que match nul sax buñ ko qualifié 1-0 boobu nag tax ba Sénégal mujjé ci ñettelu place groupe bi daldi éliminé mu nekkoon euh, fiasco euh, total yalwaan bu këpp ndaxte waxoon naa ñëpp a keetoon équipe bi génération bobu ñoo amoon également ñu jàppoon Sénégal mënon na dem sax indi coupe malheureusement à Caire 1986 ba légui dafa dess ci mémoire yi ndaxte am na lu béré bëri bëri bëri luñ ci mënoon netalé Euh, ñu ngi yegg nag ci li nga xam ne euh, yu jotee dañuy jox la parole aux experts muy coaching euh, gagnant tey nag moo bëgg ñu wax ci match amical wala match de préparation bi war a dox diggante Sénégal ak Niger le 8 janvier fële ci stade Abdoulaye Wade bu Diamniadio ñenn ñi jàpp ni match boobu dafa risqué lool ndaxte c'est à une semaine du premier match des Lions maanaam Sénégal ak Gambie blessure bu fa amee nag. ñaanuñu ko yàlla maara day taali xaw na indi daal tuuti jiixi jaaxa ñenn ñi jàpp ne lu mënul ñàkk la ndaxte faux joueurs yi jongante ngir mën a am rythme ñenn ñi jàpp ne également risque na waaye itam ñu déglu leen. donc risque bu ci nekk surtout yaa ngi joué koo xam ne qualifié wul coupe d'Afrique mun nga ci gaañu loolu aussi mun nga mun nga nangul ñooñu di xalaatee aspect boobu man fi may jeexalee rek. Kérok, bu ñuy remporter le trophée continental c'était la première fois dans l'histoire du Sénégal depuis les années 80 Nous dem ci Coupe d'Afrique j'ai eu une match amical Téréoul, on a gagné le trophée. Sénégal day pour défendre son titre de champion d'Afrique day nekk yoon mu frotté wu ay équipes yu mag te moom lañ def temps préparation comme Cameroun comme Algérie contre comme euh, le Brésil c'est normal tamine nga war a équipe yoo xamante ni duñ équipe yu mais équipe la yoo xam dañuy de football. nañ ñaan Ma préparation bu baax match tagato bu baax parce que dina permettre aussi sénégalais nek nekk ci bain wu euh, Coupe d'Afrique bi jour yi nek déjà ci bain bi nek nañ ci parce que liste bi génn na mais dañ ci gëna nek parce que am gisé ambiance bi am euh, nga gis jour yi gis lolu <clears throat> je pense que dina leen gëna ñaax ñu xam ni que am ñu seen ginnaw et que bon dañuy wara dem dem wat benen ndam mu comme nak euh, ku nek ak ngay gisee yëf yi ñu ñaanal euh, yi bu kenn manqué ben cas de forfait buñ ko am ben cas de blessure également buñ ko am amine. kon nak dañuy jall ci li nga nak moy last bi rubrique image du jour wala sax bu len nexé ngeen vidéo du jour dañuy doxantu ànd ak waa douzième gaynde xam ngeen ne nag fi mu toll nii coow li bëri na lool diggante président Issa Laye euh, Fall ak Paco Sénégal rek euh, ku nekk bëgg jël sa yoonu bopp waaye tey euh, Fall Drapeau am na lu doy waar lu mu wax ci biir douzième gaynde ñu déglu ko. ñun tey mënuñu nekk ay doomu Sénégal dem gagné ji Coupe d'Afrique galvaniser équipe ba ñëw amuñu ci juróomi dërëm lu dul suñu réew fonk suñu réew tey jii ñu jël ay étranger ay béninois di leen jël di leen teg suñu kaw. di jël ay supporters béninois di leen yóbbu bàyyi fi supporters sénégalais yi parce que loolu moom xoolal kooku moom an c'est anormal. Euh, mu ngi noonu ba léegi ci li nga xam ne mooy image du jour yéen a ngi fàttaliku Christian Bassogok attaquant camerounais boobu tam ñu laqaloon lool ci CAN 2017 bi ñenn ñi ne woon 18 ans la amoon te boo ko xoolee jàpp ne 45 cinquant la am. waaye ndaw Samba. Cameroun nag indiwaat nañu benen cas bu bees fim tolni nak ki nga xamné moy def le buzz sur les réseaux sociaux moy sen attaquant bi di Wilfried Nathan Douala mom nak 17 ans la am. moy yeen sandwich. moo tax ma bëggoon ñu def ab méngale entre Wilfried Douala ak Amadou Diouf ngén wax ma kan mo mak